ma jàpp ni euh, lu baax la waaye niñ ko defee. C'est une bonne idée, mais dans la réalisation, ça ressemble beaucoup plus à de la poudre aux yeux. Ils sont là depuis un mois et nous peinons toujours à voir les réalisations. ñu gis ñi nga xam ne anesthésiens woon nañ leen ñu tëdd nelaw mën naa am ñu dekki te ñooñu la ñuy ragal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñëw euh, jàmmar la ñoom loolu la. Je pense sincèrement que s'il y a des gens qui ont investi des milliards sur ce littoral et parmi eux qu'il y ait des gens qui sont là depuis dix ans. C'est bien d'éclairer mais il faut le faire d'une autre manière. ko sénégalais yi moom moo doon cautionné ñooñu bi ñu fi doon def moo leen ko doon négocier loolu tax na suuf bi ci topp doomu aadama yi nga xam ni ñu ngi liggéey ci littoral bi ci chantier yi fi nekk immeuble yi ñuy tabax fii. L'autre chose c'est que il y a des milliers de Sénégalais qui travaillent sur ce site-là. Regardez un peu cette conséquence sur l'emploi. Ils agissent sans avertir. C'est dommage. maanaam ñu doon amoon am am xëy daan xëy di liggéey ci ay bërëb ñu xëy tëj bërëb yooyu te waxtaanuñu donc